asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Ousmane Dramé bu la de conscience euh, dañoo del siwaatoon rek euh, wax jëme ko ci tuut tànk yi nga xam ne le ministre bi nga xam ne war éducation nationale defe naa ne dañuy fontoo wala mu yab ñu nun nag yàlla dogal na am nu am xel dama ne askanu Sénégal ay dof ay dofa ñu tane ñi ngi nekk assemblée nationale di kërti kërti di coow ci loo xam ne daanaka fi ñu waroon a tàmbalee de foofu ndax li indi góor jigéen ci Sénégal daañu ci agsi léegi njàngale moomu ñu naan la théorie du genre commencé nañ ko ci Sénégal daanaka ñaari at a ngi xale yi ñu ngi leen di former ci a ngóor jigéen dama ne daanaka ñaari at a ngi nii la tur di genre intégré ko système bi xale yëpp a jommi xale yëpp a tiit xale yëpp a jaaxle ñii ñu ci classe mi doon soppi ay góor jigéen ñi ne ci mbedd mi yelwaan yéen ngeen nekk assemblée nationale dafa wax lan tubaab bi ak complicité yi nga xam ne ñoo jiite réew mi ba ni nas théorie di genre awuñu assemblée nationale dañu xëy rek tàmbalee jàngal suñ doomi njàng mu bon te siiwut woon ba nëgëni xale yii dañ leen di jàngal ni leen seen baay bu xëyee mu sóoru wala ngeen seen baay wodd wala ngeen seen baay ni ci kër gi taatu lawbe bu leen jaaxle bu leen jaaxle choix choix dafa def choix baatu choix bu leen di jàngal waaw maanaam yéen xale yi ay gone ngeen waaye bu leen neexee bu ngeen dem ba ca kanam ma ngeen doon ay jigéen tu seras une femme mu fils demain ci la théorie du genre lay génn xale bi danga koy jàngal ne ko sa mag bu góor ak sa mag bu jigéen boo leen bettee ñuy sëy loolu gaawul question goût la question choix la dañuy jàngal xale bi boo ñëwee bett sa mag bu góor mu ànd ak moroomum góoram di defante naka sëdul noonu loola dara nekku ci dara nekku ci amul la mbëggante la yi ñu sol ci bopp xale yi moo ñu waroon a jóg xeex ko d'abord lii ñu sol ci boppu xale yi te kenn du responsable ku le ministre de nationale ci leen waroon lu jox xeex ko d'abord assemblée nationale d'accord am na loi yoo xam ne ñoo ko war a def mais loi góor jigéen par force dañ ko waroon a forcer dugal ko ginnaaw ba defee benn sondage képp benn sondage xam ne quatre vingt dix pour cent quatre vingt dix neuf pour cent des am doom muy góor jigéen. quatre-vingt-dix-neuf pour cent virgule dama des Sénégalais bëgg ñu am doom muy góor jigéen boobu dañu waroon dugal bill bi te bañ fee xaar assemblée wala dara sëriñ si ñu sàggan lañ sàggan lool lañ def sàggan lool la laïcité yàgg na ci réew bi te kenn ku ne xam ne ne ñaaw téef yi am ci réew mi lépp foofu lay soxla ko donc yi di yalwaan di ñëw ci seen i kër di ñibbisi defuñu ko seen xel sax defuñu seen xel laïcité bii nga xam ne mooy garab gi nga xam ne mooy meññ ñaaw tee fi réew mi garab goo lañ war a dagg dañ war a dagg wax naa leen ko ba tey góor jigéen ak dëpp kees ak sàcc ak fen ak rambaaj yooyu ay bon bon la yoo xam ne franc-maçon yi ñoonu ko incarné mu ànd ak laïcité bi nangu ko waaw kon xale yi bu ñu leen di jàngal njàngaleem góor jigéen defe naa ne parents yëpp war a génn génne seeni doom ci école bi parce que loolu jaadul rafetul te tegginuwul waaw assemblée nationale nag euh, amu leen ko dañuy fen rek moo tax askan war a génn luwaay yor na ko ŋàbb luwaay am rek na ko ŋàbb ñu wax wuti palais Macky daal dafa a dem waaw soppi suñu yi góor jigéen dem kooku defe naa ne di criminaliser ñu sëy ci mbedd mi defe naa ne xale yi ñu nar a yàqandoo à la fois ñu ci jóg. l'explosion démographique africain mu leen jaaxal tubaab yi jox nañ suñ jabar yi doom bu nekk pour ba ñu jur doom léegi ana luñ décidé jël xale yi kaste leen jël xale yi wëlbati seeni bopp ba xale bu ne góor lay sëy jigéen jigéen lay sëy kooku ñépp ko xam kilifa yi diine xam nañ lépp dara wumpu leen ci dañuy jàng arab di liiri journal dara wumpu leen ci xam nañ ne daara ji tubaab bi dugg na fi pour soppi ñu ay góor jigéen sous couvert du ministre de nationale Sénégal seen noo bi du dëgg kilifa yi ñoo ko accepté ak góor jigéen du fi jóg te du fi jógee noonu tant que yéen askan wi génnu leen suñ ndey suñ jabar yi suñ jigéen ñi damm dammi tukkuur jël leen ko nu wax wuti présidence de la république tant que def lu seen doom yi da ngeen tëdd ci bàmmeel jàkkaarloo ñu ñuy séyante kenn boo ko jóg yàlla wala réew mi. tu seras une femme mon fils gis nga li tubaab bi wax moom leen jàngal sa doom yi xale yi bu ñu xëyee dem jàngi xamul leen ci dara mbirum góor jigéen képp lañ leen di jàngal dama ne kan bokk jóg kan bokk jóg ngir yàlla sawee xale yi avant ñuy dugg ci assemblée national ndax Macky day dem te day dem bu demee lu ñu war a def def ko waaye xale yi moom nañ leen sawe ñu ci biir teen bi xale yi ci biir teen bi leen génn ba noppi leen génn ba noppi doo pexe bu fi jëlee Macky Sall wañu ko encore jëlee fi laïcité bi taxaw réew moo xam day répondre ak suñuy diine kon ñu jéggul te ñaan jàmm te naan asalaamaaleykum wa rahmatullah